kon sëriñ jikko ji nga am doy na sëkk ci ndabul doomu aadama nit ku nite kenn nit mën a bàyyi dara ngir sa jëm ci nit ku nite kon na nga yokk góorgóor nga xam ne cëslaay yi dimbali nit suñu borom defal na la ndax tànnal na la ay waajur yu baax biñ ko amee itam ñoom itam liggéey nañ wane seenu baax ni ma ko waxee de Serigne Adama bii yaakaar naa liggéey na Serigne Aliou bis ba Serigne Aliou ko yëkkati mbubbum boppam jox ko Serigne mi itam keroog yaakaar naa mu jumut ci am nett ba ñu yëkkati waay juróom bu jigéen di ko jox Serigne Adama Serigne Aliou waxoon na ko ci lu mooy di tey kon nii mu mel bettiwut moo tax ki toog fii jàng daal te sëñ aada am na ndam lu wér la loolu yàlla may la njaboot suñ borom dimbali njaboot googu ba foo leen séen rek xam ne ci lu baax la ñu ndam loolu doon si kanam te sëriñ jikkoy boppam rek ndax yar bi moom foo ko mën a takk da koy weesu ginnaaw bi yàlla dénk ab yaatam mu am ak nite bu nga ko mottalee te nit day lu am solo mën a joxe ab cër te yàlla tax cër bari na ñu koy joxe yàlla dajee néew waaye moom dana joxe cër te yàlla rek tax waaye loolu itam doonu lu muy jàng da koy tari ndax ni ma ko waxee léegi ndax nit ki ci lañ ko nàmpatal mu judd ci su koy def sax du ko yëg du xam ne moo koy def dañ tey teg seeni bët du ko seede ñoo naa diw lii la mel waaye nii rek la war a am kon na nga gor ina ginaaw bi la yalla dimbalee boole la ci jànkati xasida yi ndax ndangum xasida kep ku ci nak na nga woor ne bokk nga ci yalla tan ni sol dal lu baax ndax dafa doon lo xam waxuma la ca nek ci biir ci ay njariñ waye dafa ris ris go xam nga diko ko di ko xamul sax da ko fu sari ku yalla defal tawféex nga man war nga sant yàlla waxuma daal nag nga mën caa xam dara te sëriñ bi itam ci am nekkam sampoon na ay kuréel kuréelu xasida yuy jàng xasida mu du ko teewlu la ko kon ku yàlla defal tawféex nga yëkkati xasida nga xam ne bokk nga ñi sëriñ Tuubaa tànn ñu di ko liggéey ci toolu xasida ma am dénkaane bu may dénkaane boo xam lu gàtt ci yéen ñi nga xam ne yéen la Serigne Touba tànn ngeen nekk ci tool boobu bu leen fooyee seen bopp ndax yàlla jox na leen tool bu riis bu am ngañaay ndax ngañaay li bari na jànkati xasida yoo xam ne ku leen seen bëgg di ñoom loolu doy na ngañaay dana teew ci ay jataay gis fi ay nit ñoo xam ne duñ bëgg du ñëw li gën a jafe ci àddina mooy bayre boo am bayre boo xam ne dafay ànd ak bégte ci nit ndax ni ma ko mën leerale ci waxi wolof ak kaña bu ne woon tëll fii lu mu néew néew néew da gis juróomi gën a topp waaye sàgg yi am sàggam rek lañ fas yéene waaye jàngkatu xasida bu ne dëll fii da gis koo xam ne sax àtt naa loolu mooy sag bu ànd ak ngañaay ginnaaw yàlla na toole na na ngeen ko sàmm te waggar te xam na loola ci la seen ndam jëfal sëriñ Mbacke Ndiaye di ko wax lii nga def rafet na lool comme ni ko sëñ Ablaye Sam waxee léegi rek ndax bis bii nga jël délégué ko waa ñu tudd Sam Diouf nga xam ni délégation bi léegi rek maa ngi wax sëñ Sowa Gueye ni ko lim bi gën a gaaw rek mën nga ne waa bas bi yëpp ci lañ bokk loolu moo gën a gaaw lépp ndax gisuma ku ci génn ñoom ñii ñoo ko mel meññ waaye ñu ndaw ñi ci ñun la mujjee kon délégation bi ñëpp ci lañ bokk te sëriñ Moussa Gueye mi ni mu ma ko waxee daanaka bëggul woon sax kàddu di jóg daa bëgg na gis sëñ mbacke rek ñoo ñu yeewee ko ndax kenn ku ci na xam na ni ay gan la bàyyi kër ga te ña nga toog di ko xaar waaye nag daa fekk ni am na loo xam ne ku la ko defal faaw nga sant ko mënta ñàkk lu toll ni bisub Seexul Xaddim lu toll ni bisub xasida ku koy yëkkati tuddee la ko kooku amook fayam ndax am na ñoo xam ni leneen la leen tuddee moo xam bisub caaxaan la mo xam bisu lamb la wala sabar ak lu man doon te dañ koy bookeroo di ko jàllale si télé yi fa la ñu fekk jàllale te doonul bis bu yàlla gërëm kon nag kuñ tuddee bisub xasida war ngaa sant bu baax moo tax sëriñ Moussa Guèye nii mi ngi sant sëriñ Mbacke Ndiaye di ko ñaanal bis bii yàlla na ko def téeméeri at yu tàmbali ren nee na nag gis nañ ni ngi leen jàppe ndax bu dul bis bee doo dugg dara loo xam ne ñoom duñ ko yëg lépp loo dugg rek ñoom nga koy àndal kon boo jëlee bis bii tuddee def ko daa mel ne sa bopp nga ko tuddeewaat rek moo tax si mos ak mi ngi sant bu baax nee na mi ngi lay sant bu baax di ak Serigne Sam Diouf mi nga xam ni moom nee naa ko yow dañ laa war di ñaanal fi ñu toll ndax tur bi sax dem na foo xam ni. jëmm ja demul moom sëriñ Sam Diouf mii yàlla xam na ko tur dem na foo xam ne jëmm ja demu fa am na ñoo xam dañuy dégg bitigu Sam rek te xamuñ kuy Sam ak sëriñ Lamine Niass moom it bokk ci délégation bi ak sëriñ Matar Tall ak sëriñ Pape ak sëriñ Bara Ndiaye ak ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi ci waaye dañ cee tudd ñooñu rek ngir jiital leen ci suñ mu soxla génn nee na mi ngi lay sant baax sëriñ Mbàkke Njaay nee na lii nga leen defal rëy na ci ñoom lool rëy na ci ñoom lool waaw waaye yow it suñ mu soxla génn sëñ Mbàkke nee na lii mu def defu ko ngir dara ndax keroog bi mu koy waaj woo nañu ñu waxtaan ci ñun ñii rek li ñu doon doon tout tànk amul lenn lu muy def te du ko waxtaanee ñun yàlla xam na ko lépp lu muy def rek ba ci sëñ Modou Diaw mii ma ko tuddee keroog dañ ñoo woo ñu ci ñu ni ko ah loolu rafet na ndax day mel ne ki nga ko tuddee ak ki nga ko dara jaay lépp benn la boo doon wax ba juum ci sax jërum ngay leeral la buñ ko tuddee sëñ Modou Diaw dara jaale ko waa Bikidu Saam nga ni sëñ Modou lañ ko dara jaale ni waa Bikidu Saam lañ ko tuddee juumoo benn la waaw ndax sotti si def si la kon nag ñu ngi lay jaajëfal di siyaare bu baax comme ni ñu ko waxee woon rek jàngkat yi xasida yi fi ak seen Lamine Ngor mi nga xam ne di nit ku baax yàlla xam ne ni démb bi fi yónnee teranga yi fi la ma fekk mu doon teranga yu bari ñoo ngi lay ñaanal baax suñu borom yokk say teranga di siyaara sëñ ahmad Njaay bu baax di ko ñaanal ak suñu bay bay aada ak suñu yaay yaa ndey jën ak mboolem ñi nekk ci ginnaawam ñëpp. ah Soumaïra Ndao la. soxna Ndeye nii nga gunge ko nii dëgg dëgg nag sama yaram daw la ndax bu la neexoon nag koo ko yàqal mu yàq. soxna maam Diar jërëjëf waaye nag boo ko moo ko ñun ku ñu tuddee nga jël ci ko juróom-ñaari ji. sa turandoo képp moom màggal bi. 32 ans la dund waaye moom képp moomu màgg. def sa forte délégation nii sa yaay wan na ni nag nii ngay joxe sa mag sàmbala bi sama xol seet na ci tubaarkàlla li suñu xol gën naa seet ñun ñi nga xam nag suñu nekk li waaye lu baax lu dégg mu siiw may ngeen ñu nag may ngeen ñu nag lu wax yàlla leen yàlla faskat bàyyi na lii xam naa sa xol de ndax borom kër bu nekk lii rek lay ñaan ci njabootam soxna Bintu lii seen xol seet na yàlla na yàgg ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax suñu xol seet na sëñ Fallou nangul enveloppe bi ma nangu rek sama poos bu la jigéenam waaw nangul Kumba Fall ca Dakar moom mi nga xam ne nan mun leen di góor lu góor gi ko lew قد سألت